grand ñagas say nga gis Sénégal doo ko doon gis ay Europe ay des fois ay stade Barcelone stade euh, kii tey moom Sénégal loo ko jàngatee. waaw loolu xéwal la maanaam xéwal go comme que tubaab nee na le malheur ne vient jamais seul. donc le volo le bonheur aussi ne vient jamais coupe d'Afrique bi moo indi lii mooy indi qualification coupe du monde mooy ubbi du monde lu jot yomb rek ah à qui attendre waaw. boo boo négee négandi rek lu jot yomb yàlla xamul lu war lu jot la xam ay kii war na am xaru tabaski xamul loolu kii jot na tey mu tabaski loolu la xam donc lépp lu ñuy am yàlla nu jik ànd ak suñu wërsëg ànd ak suñu muur ba pare doon li nga xamante ni mbégte Sénégal la du doon li koy lor. donc da ngay woo jeunesse bi nga xam ne à chaque fois leen tudd si violence stade yi affaire yooyu noon da lay leer na fii du fekkee mas des fois ñu gagné Sénégal. gars yi yàq bi noonu la waaw waaw loolu beneen éducation la genre édifice yu mel ni genre bijou yu mel ni dafa ànd ak euh, benn communication bu jëm si wàllu sensibilisation mooy maanaam li nga moom mënoo ko yàq. booy yàq des fois di nga yàq ba yàq loo moomul loo moomul nag boo ko yàqee après tu te rends compte que ni euh, noonu la demee euh, yàlla nañ yàlla musal et puis léegi on a une jeunesse consciente bi nga xamante ni je pense que ni xam nañu valeur affaire yi donc yàlla si yàlla def xéwal rek mu ànd ak yeneen bonheur yi ah, yi topp si ginnaaw. dégg nga si li mu maa ngi nii maa sant man ak fu ñu ngi waaj benn album xam nga eh, ñu ngi si ñu ngi waajal benn tournée euh, si été bii di ñëw nii euh, européenne. ak yeneen affaire yeneen affaire on bouge dans le social et cetera et cetera et puis di baax la parce que El Hadj yàgg na dama ko seeti ba euh, Medina donc c' est une bonne personne booy bu bëgg liggéey la billahi tôt ou tard dina avancer c' est une très bonne personne maa ngi lay remercier di la féliciter si yokku bi yàlla na lépp yokku quoi jaajëfate bëgg naa kii kii li neex na de ah non suma grand la la ba pare moom bu waxee rek tëj nañ waaw ñun ñu ngi bigéb ñëpp kontaan nañ waaw bëggee jaajëf ñu ngi ci kawam ñu ngi li ñu ngi job ñu ngi job ñu ngi waajal lu album bi incha allah yàlla baax na jaajëf